it. toujours dans votre acte du jour de ce 4 septembre 2024 fofu lañuy ñuy desandi ginnaw bi nga xamanteni li di scandale présumé bi ñu nemmeeku foofu fa ci onance ginnaw lolu l'ex DG Cheikh Dieng dal di koy yëkëti tek ko ci ndoddu ki nga xamanteni moy ministre de tutelle am di Cheikh Tidiane Dièye mom ministre de la justice néna dal ubbi nañu li nga xamanteni dal moy ben enquête pour mëna léral li nga xamanteni moy scandale bi ginnaw Thierno Alassane Sall bu mu déposé won ben plainte contre est-ce ci table procureur ki di Moussa Diakhaté def pétition am ci lu tollu 78 000

ancien directeur général bii di docteur Cheikh dal dina ko yëkëti comme par mesure bi nga xamanteni a bëgg na affirmer que l'éploi lo xamanteni projet de loi organique bi dal dina koy déposer manam fukki waxtu ak juroom ñett ci loi bi nga xamanteni mo porter porté modification règlement intérieur bu assemblée nationale ginnaw biñ ko promulgué ginnaw lool dal joxé na bu favorable jëmale ko ci conseil constitutionnel. ginnaw bu ko joté le 29 août par ailleurs dal dina koy déclarer ki nga xamanteni moy Ousmane Diagne di ministre de la justice. Yeah.